maa ngi leen ko doon wax tey ndakaaru la ñuy yem rawatina ci centre ville bi Dakar Plateau ak soxna as su Diouf saar am na benn euh, koñ wala quartier bu fa nekk bu ñuy découvrir tey soxna su maa ngi lay nuyu di la ziar tey fan la ñuy ànd ak yow. ñu ngi lay fay di nuyu itam ñi nga bokkal plateau bi di nuyu téléspectateur yi ñu seetaan tey nag ci seen biir rubrique de ko est-il le nom ñu ngi fii ci biir dakaar ci benn quartier bu ñuy woowee Mbot Mbot nag nekk euh, benn ci fukki penc ñaar lébu yi ñu fas yéenee waxtaan ak askan wi ñu fi fekk laaj leen ndaxam turu le xam nañ lan moo ko wëndu. ñu wayande ak yéen euh, ba tey salaamaaleykum sëñ bi nuyu nañ. waaleykum maa lay fii nga dëkk ci Mbot. fii lay non dama ah. yàgg nga fi wàll. naa fi tuuti rek. dañoo bëggoon xam tur lan moo ko waral lan nga yaakaar ni moo tax fii ñu tuddee ko mbot. man moom mënuma la tur bi quoi fii mbot rek laa fi xam daal <laughs> mbot angal rafinal angal daal loolu rek laa fi xam quoi waaw. jërëjëf. sëñ bi ñu fekk fii ci mbot ñu bëggoon xam ndax xam-xam nga tur lan moo ko waral. waaw turu mbot nag day wax dëgg yàlla man mën naa ne xaw ma ko quoi parce que fii dañu fay ñëw rek pour daan si doole quoi. ñu wéyandi ak yéen ba tey salaamaaleykum soxna si nuy nañ la. maaleykum salaam ñu ngi lay fay bu baax. ñu fekk la fii ci mbot ndax xam-xam nga tur lan moo ko wëndoo. ah ñun de fi nañ dëkk fi nañ juddoo fi nañ yaroo fii it nañ màggee turu mbot nag jiitu na suñu juddu xam naa ne boo fi fekkoon sama tante yi dinañ gën a leeral lan moo wundu turu mbot. jërëjëf ñu wéyandi ba tey salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam ça va soxna. ñu fekk fii ci mbot est-ce que xam nga fii lu tax ñu tuddee ko noonu. yan lii ngeen ut nii ñun tamit il temps ñun tamit ñu toog réunion xam suñu culture parce que nit tamit na fi nga dëkk war nga xam yow culture bi lan la parce que ni ngeen ñu bettee nii laaj ñu fan la ñu dëkk te ñun mënuñu leen ci wax dara loolu tamit ça fait un peu mal. jërëjëf. gannaaw bañ waxtaanee ak askanu mbott ba ñu xamal ñu ci seen xalaat fañ lañ yaakaar ni tur foofu la jóge ñu ngi ñëw nag dem waxtaan ak suñu papa Sele Pay moom nag si magum dëkk bi la dinañu xamal dëgg-dëgg turu mbott bi fan la jóge léegi léegi lay doon. waaw mbott boo ko déggee ci fukki penc ñaari ndakaar yi la bokk fukki penc ñaari ndakaaru yi nag boo ko xoolee juróom-benn dañ nekk Dakar Plateau juróom-benn nekk Medina. alors mbot nag euh, ci niñ ko déggee tur benn arbre fruitier la boo xam ne jigéen ñi dañ ci daa jariñoo pour togg ay ceer rek yooyu loolu moo tax euh, turu looloo indi turu mbot bi. mën nañ jàpp ni arbre boobu dafa bari woon ci dëkk boobu la. waaw en principe dafa bari parce que ñun fekkee ñu ko mais xam nga dañu nettali rek. alors euh, moo tax euh, parce que mbott aussi fi mu nekk léegi délimitation fi mu nekk ak fu ñu nekkoon bu njëkk bokkul parce boo xoolee fukki penc ñaari Ndakaar yëpp plateau lañ nekkoon le haut plateau mais mu jégi dañu déménager ay sànce baak ñi ñëpp nekkuñu woon fii ñu ngi nekkoon dans le haut plateau ci lañ toxoo ñëw fii bi ñu créé Médina bi Médinatul Munawar alors euh, nekk six penc am yu des fële comme mbot dafa des parce que bu ñu bëggee toxal mbot dañu amal suñu kilifa maam Farba Pay jaraaf Farba Pay mooy turandoo maam Farba alors euh, bi colon yi ñëwee ne dañuy toxal mbot dafa na mbot du toxu créé nañu une euh, la maladie de la peste ak yooyu yëpp loolu mais mu bañ ne mbot du toxu Euh, biñ ñëwee à deux reprises première reprise bi dafa génne ay yamba ci ay farfa bu wom mu génne ay yamba yamba yi dàq les colons deuxièmement chose bi mooy dafa jël xeejam dóor ko ci déen gi am na benn garab boo xam ne mooy labu totem du penc moom la ñu owee dén gi ci mbott ci la jël xeej bi dóor ko ci garab gi xëcc ko alors au de la sève du sang a coulé tubaab yi naan mais ça c'est du sang mu leen nag ku manul li doo toxal fii looloo tax mbot toog foofu ba léegi déplacé woon ñoo ko déggandoo mbot di ab arbre fruitier bi nga xamante ne bii jigéen yi foofu moom lañ daan utiliser ngir togg yenn plat yi yaakaar naa ni euh, leer na lii lañ leen indiloon tey ci seen rubrique de quoi est-il le nom daje beneen yoon incha allah ci beneen numéro. jërëjëf soxna su Diouf Sarr merci beaucoup leer na malheureusement duñ ci mën a taxaw mbottu bokkoon ci bokk-bokk ci euh, fukki penc ak ñaar yu lébu yi euh, fii ci Ndakaaru 7 h une minutes dañuy ñëw dem RFM